asalaamaaleykum mbokk yi noo ngi leen dund nuyu bu ngeen gisee lii ngeen xam ne mouvement ànd suqali suñu gox moo taxawaat njiitul sëriñ xaadim sopp na bi ngir lan jógaat falaat président Macky Sall mu amaat deuxième mandat tey jii nag ñu ngi demoon Mbusoobe Mbusoobe nag buñ ko waxee Daarul Karim ca la bokk Daarul Xaddim ca la bokk ñoom nag jógoon nañ tey ngir teertu sëriñ xaadim sopp na bi jox nañ lépp sëriñ xaadim loolu nag ñu ngi koy leeral ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi président Macky Sall ak Marème Faye Sall di leen xamal ne sëñ Xaadim ci ay moyens ni boppam ci lay jóge di jàppale Macky Sall pour mu toogaat deuxième mandat kenn nag xam nañ ci koo xam ne mi ngi koy jàppale muy bàyyi àll silla ku weesu kooku keneen jàppale ko lépp ci ay moyens ni boppam rek lay dox di dox ci social di dimbali ñi nga xam ne ñooy sancaan yi te seen loxo jotul seen ginnaaw ñi nga xam ne ñoo nekk Touba Macky Sall teg leen fi ñu geestu Xaadim sopp bi ndax ku mel na moom ci Touba amu ci koo xam ne day liggéeyal président Macky Sall ngir lan mu jëlaat ndam kooku wër wañ ko war a bàyyi xel waaw ngir lan ngir tóoj ko mu jëm ca kaw ca kaw kam ndax it li muy def ci réew mii keneen koo xam ne mu ngi ci réew mii di politique nekkal fi Macky Sall defoo ko kon nañ jàppale suñu xaadim sopp na bi mi xam ne jàmbaar la xam ne bu buñ ko jàppalee président Macky Sall dana amaat deuxième mandat Serigne Khadim Gueye sopp na bi dégg na li ngeen wax. ah mbokk be yéen waa Touba Mbusoobe yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ah, di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci barkeb Seexul Xadim suñu jotaay bi yàlla bu doon suñu mujj jotaay daraje Seexul Xadim tey nag moom mel ni tey dañoo ànd li leaderu politique bu mag ñu naan ko Serigne Khadim Gueye sopp na bi tey jii ñëw fii nga xamante si ni mooy Mbusoobe ah ñëw nag seet si. jigéenam yu baax yi waaye jaare ko ci soxna su baax si soxna Faat Fall soxna Faama Mbay waaw soxna Faama Mbay ñëwoon seet si ko mu ànd ak ay jigéenam ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu booloo doon mbootaay Serigne Khadim Gueye tàllal leen loxo ngir jàppale leen moo waral tey jotaay bi te it Serigne Khadim yaakaar naa ne ñoom ñii soxna Faama dégg ay activité Serigne Khadim ak xam lu baax li muy def ak ni muy jàppalee sancaan yi nga xam ni social rek ko ñor yaakaar naa ne moo waral jataay bi moo waral ñu dajate ji ngir ñëw ku nekk xam na ni fi mu ne campagne ba mu ubbee ba léegi amut bis boo xamante ni huit la ñuy xëyee kër ga bala ñëw duggaat daanaka une heure deux heures la ñuy dugaat suñuy kër kon loolu ku ne xam na ni métti na te jii bi ni ñëw ñu ngi jóge ci barab jëm si waat fii waaye soxna Faama xam na ni eh, mel Serigne Khadim xam na ni mbooloo mi dëgg yàlla ni nu mel Serigne Khadim moo waral jotaay bi nii ñoo ngi leen di nag. jileen wax ne ñëw nañ fii nga xamante ni dëkkub Serigne Touba la waaye dëkk la boo xamante ni ay jigéen la fi nekk doon ay jàmbaar muy tubaam bu soobee ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar lañ jigéen ñoo xam ne ñu gëm liggéey lañ jigéen ñoo xamante ni lu baax rek leen ñor Serigne Khadim nag yàlla daa dogal ni moom daa bokk ak yéen jëmuwaay mooy Serigne Khadim li ko ñor mooy social social nag boo ko déggee mooy jàppale ñi nga xamante nii suñ borom dafa dogal ñu bëgg liggéey ak ñi nga xamante ni yàlla day ne boole njaboot te ku nekk xam na ni leen war a man dëgg dëgg dëgg dëgg daanaka mënuñu ko sëriñ Xaadim nag ci loolu lay dox moo waral tey jii mu ñëw Touba soobee ngir waxtaan ak jigéenu Touba Mbusoobe ngir ànd ak ñoom ngir ñu falaat président de la république ah premier tour loolu nag bëgg naa ñu tàcc ko bu baax Serigne Khadim bu jógee doon ndaw ndaw la waaye ndaw la nee na ndaw bu loxam setee mu mën a bokk ay mag li tax président de la république wóolu ko ba tax mu jël engagement yii mu jël ci moom di liggéey liggéeyam bu am solo bii damay faral di wax naan affaire bi du ay wax yu bari du ay yëngal du ay dem mbàkke yëngal ak yooyu déedéet affaire bi mooy lii Khadim Gueye di def dugg ci biir sancaan yi ñu koy wax seen i doliyaas di leen wax seen i soxla muy jigéen ñi di leen jàppale seen i jumtuwaay di leen dimbali ci li nga xamante si ni moom lañ bëgg ndax jigéen ñi li nu manqué le bari nan war na ñoom ay projet yu ñuy liggéeyee parce que ay njaboot lañu yor te bëgg na nañu liggéey mais gisuñu ku leen jàppale seeni i nag bëgg jàppale jigéen ñi tax moom activité yëpp ci politique am ko def ci biir sancaan yi ànd ak ñoom ngir dugg ci biir sancaan yi xool li nga xamante si ni mooy seen ay soxla li nga xam ne mooy seen itam mu dugal ko biir palais wax ko ah président de la république monsieur Macky Sall moo mu leen jàppale leen ci loolu. mbootaay gi mbootaay gu rëy la. ñu bëgg nag ku ñu jàppale. Mhm. ñu ànd ak yow. Mhm. te yaakaar naa faama sëñ xaadim bu ñëwee fi ne def ñuy jàppale. Mhm. li wax dinañ ko gëm. waaw ñun nag ku ñu jàppale rek lañ bëgg ñu liggéey. ndax ñu ay jigéen lañu te sa suñu fente dañoo jaboot te suñu borom kër yi amuñu doole. ñun liggéeyuñu dara jigéen joo ci gis mu ngi ci marché yi mu ngi ci xollim gerte bi liggéeyuñu dara. ku ñu jàppale ci projet ñu liggéey lañ bëgg waaw jàppale suñu doom yi ndax ay xale yu ndaw amuñu fu ñu jànge yaa ngi dégg ñii yaa ngi ci sareetu mbaam yi amuñu dara lu ñu liggéey ñun daal maanaam daal ku ñu jàppale lañ bëgg mbootaay bi képp jigéen boo xamante ne mu ngi ci carnet mbootaay bi am nga carte d'identité waaye nag nax bi ñuy nax nax bi ñuy nax moo tax amatuñu kóolite ci kenn waaye sëñ Xaadim mi yaakaar nañ ne am nañu kóolite bu baax ci moom tàccu leen loolu kóolute bu baax courant bi nag affaire courant bi moom ku ñu jàppale ñu sant la ak ndox mi ndax ñun nag wax dëgg sim yàlla amuñ amuñu courant ci lëndam lañ nekk waaye nag sant nañ yàlla ndax te tamit nit ki ku la jox añ bu la diggee ku la jox añ bu la diggee reer war nga koo gëm ñoo ngi lay ñaan sañ xaadim nga xam nga xam ne ñun ñoo ngi ci lëndëm suñu élèves yi bu ñuy jàng bu xale yi bu ñuy bu ñuy génnee di dem sax ñu ngi leen di kar ay citoyen lañu gis nga man mii di wax ah, maa kàddu suñu meeru mbootaay muy Penda Diallo mii toog tey maay secrétaire am ak suñu mbootaay bi am nañ fukki leen loolu ñun waa Daaru ak ñun waa Touba am la jàppale ba nga kontaan incha allah ngeen falu deuxième tour lii nga xamante si nii moom ngeen wax Serigne Khadim balaa min wee dana dugg biir pale laa wax tàccu leen loolu balaa midi président dana ci jot la première daan ajaratu Marème Faye Sall mi nga xam ni mooy dimbali jigéen ñi nag dana ci jot te yaakaar naa ni Marème moom ci jigéen ñi rek la sawar incha allahu rabbi dana taxaw ci loolu dana taxaw ci seen projet yi kon nag seen xal daal bu baax a baax a baax a baax. ñun day ñoo ngi ci yéen. ndeysaan ndax li ngeen wax fii. Mhm. am nañ ci yaakaar bu baax. ndeysaan te nag ñun. Mhm. bëgguñu ku nax. dëgg la bari nañu fi jaar te lii ngeen toog nii jataay bi amuñu ko fi. dañoo dañoo continuer dem. yow sëñ Xaadim xam naa la bu baax xam naa fi nga bokk. ñii bañ waxee ba na leen kenn du dem ndax sëñ Xaadim bu dee muy ñëw xam naa bu baax. nun nag ku nu dimbali si suñ jatuwaayu njaboot gi ak suñ liggéeyukaay maanaam ndox ak courant ak jàngukaayu xale yi amuñu ci dara ñoo ngi nii kuy génn guddi doo am loo niitoo fii fépp courant amu fi courant bi dañoo tiim ca kaw kuy génn sax doo gis dara bu fekkete ne ba ngeen ñu sànni leen carte li ngeen xam ne moom lañ bëgg nuyut ngeen wéy ci ndax amuñu ndox amuñu courant amuñu dara école xale amuñu ko amuñu luñ liggéeyee nun jigéen ñi ñoo ngi ñu ma damaa yenn fonde ba sama bopp bi dafa dara. tàcc leen seen bopp. bu soobee yàlla nag ñoo ngi ciy yéen ñoo ngi ciy yéen bu baax a baax ñoo ngi ciy yéen. xàjjiwul te liñ bëgg nag ngeen defal na ko ñoo ngi ci yéen tey ñoo ngi ci yéen suba. suñu xaadim suñu xaadim yow rek yaakaar naa fi nga bokk ku fi bokk loo wax soobe yàlla day am ndax fi nga bokk kenn mosu fee wax loo xam ne nii amul ay tànk caaxaan mosoo caa dox dara mosoo caa dox dara leen dong nag lan lay ñaan duñu liggéey ak procès ak li la ko jigéen ñi waxee rek man dama mënta farala wax ci mbooloo waay ñi nga xam ne ñoo nekk ci maanaam ni ma la ko mën a waxee moo ñu nekk ci sañcaan yi sëñ Xaadim fa lay dugg di leen dimbali di déglu seen i euh, li nga xam ne moom lañ manqué sëñ Xaadim di leen ci déglu di leen di leen ci ay moyens ni boppam ndax sëriñ Xaadim ah président Macky Sall mi nga xam ne moo yor yor réew mi bi nga xamee ne bëggoon naa falo dafa tàllaloon loxo sëriñ xaadim sopp na bi sëriñ xaadim sopp na bi jàppale ko ba mu toog a ah, bi mu bëggee toogaat mu tàllal loxo sëriñ xaadim sopp na bi sëriñ xaadim sopp na bi nag xamal ko ne ko danaa dugg ci terrain bi seeti soppe yi seeti wëllëre yi seeti am di jàmm yi ngir lan ngir nu falaat président makki Sall ngir mu demaat ci biir palais ba kon ma a ah sëriñ xaadim na bi nag di jàmbar ah nekk koo xam ne président rek moo ko ñor nekk koo xam ne sancaani rek a ko ñor sëriñ Khadim sopp na bi bëgg réew mii ah lu ay réew di am réew mi am ko moo waral Serigne Khadim sopp na bi ah sol dàllam ànd ak ñi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal ngir bëgg réew mi jëm ca kaw ca kanam sëriñ Khadim sopp na bi nag ah ku ne xam na ne du lekk bàyyi ay ñoñam sëriñ Khadim sopp na bi lu am bokk na ko ñi ko yàlla booleel yéen nag yéen waa Touba Mboussobé ak Daaru Khadim ngeen engagé wu sëriñ si sëriñ Xaadim sëriñ Xaadim engagé wu ci yéen ci lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la sëriñ Xaadim dana ci taxaw dana ci wax dana ci dox ba li ngeen bëgg lépp ngeen am ko li ngeen wax sëriñ Xaadim dégg na ko muy courant bi ndox mi procès yi sëriñ Xaadim incha allahu rabbi dana ko àggale si président Macky Sall ngir loolu mën a saafara wu sëriñ Xaadim sopp na bi ñii engagé wu nañ jóg ngir ànd ak yow ci lépp loo xam ne bëgg ko foo joxañ foofu la nee foo doxoñut du foofa ànd nañu ak yow tey ànd nañu ak yow suba di la diglu bu wote a wote jee dinañ ci ànd ak yow dem wote ji na bi loolu nag dara waralu ko lu dul sa kaddu goo xam ne am nga ko fonk ko loo leen wax nar nga ko loo wax def yàlla yàlla rek ko man waaye lu leen wax nar nar nga ko kon suñu xaadim sopp na bi waa Touba Mboussowe waa Darou Khadim ànd nañu ak yow tey ànd na ak yow suba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala mi sama way jur yi ma fekk ci fii di samay yaay yéen lay jël sama nuyoo di ko teg seeni loxo ngeen tegal ma ko ci mboolem magi dëkk bi yépp di waa Mbusoobe ak Daaru Xaddim ba biir Daaru Karim ak li ko war lépp di ñaan rek yàlla bàyyi nu seen kanam ngeen yàgg jiite nu yàgg seen ginnaaw ndax man sama yaram daa daw. ndeysaan. sama yaram dawee mooy lëndëm bi. ndeysaan. ngeen ko yëgee la ko yëgee moom nag naxaate taxu koo jóg dimbili jaam ñi rek moo ko tax a jóg xam nga ne kilifa gu wax ba nga xam ne ay rongoñam a ngi génn kooku li muy wax ñor na ko yittal na ko ah mi ngoog de sëñ Xaadim sopp nabi ñëw nga ci say soppe ñu ngi ci ñu la bëgg barke sëñ Tuubaa Mbàkke waaw waaw mi ngoog de waaw waaw bu ngeen gisee yàlla def ñun ñu sóobu si politique dara waralu ko sunuy loxo jotiwul sunu ginnaaw. sunuy loxo jotiwul sunu ginnaaw. waaye dañu xam ne Sénégal fi mu toll. ndaw ñee koy mujje te ndaw lu si bëgg lu baax. fas yéenee am jom. da xool sa yooyu jur lanu nekkoon nga nekk sa. te yàlla lu mu bind doomu aadama ko si gënal. dëgg te ñi nekk fii si biir sancaan yi seen loxo jotiwul seen ginnaaw ñoo ña nekk si biir dëkk ba rekk a yem. dëgg la de. xalima ge bind ñële moo bind ñii. ma gis ne nag responsable politique yi fi nekkoon doon ay mag. yàgg na noo sonal doomu aadama yi dugal leen si kaar guddi dugal leen si kaar bëccëg te mosuñu leen a jariñ dara kun si jox ñeenti téeméer nga jàpp ne jox nañ leen lu ne baa kun si fal ba nga falu dootuñu la teg bët ma tëdd xalaat xam ne nag loolu war naa jeex ñun ndaw ñi war na noo takku booloo doon benn sunu way jur yi jiite ñu xool sunu gox-goxaat yi nga xam ne mooy sañcaan yi nu am nga xam ne suñuy loxo jotiwul suñu ginnaaw ñu téyel ko suñu bopp ba ëllëg ak si biir képp ku bëgg dara si ñun mën a ñëw defaral nu fi ñu nekk loolu moo sabab ma du sóobu si politique mhm. bi ma si yàgg naa si ndax Ibba Gueye maire Mbacke toujours ma wax ko. ak mhm. Baye Khalifa Diop sa Mbacke di surtout suñu Omar Diop. Mhm. ñoom ñoo nu yar sa Mbacke Bawol. waaye bi nu tuusee fii nag sañcaan yi am si ñunu yaakaar ñi seen loxo jotiwul seen ginnaaw am si ñun yaakaar te ñuy ay ndaw yoo xam ne suñuy loxo jotiwul suñu ginnaaw waaye ab jaam day bëgg sabablu yàlla fekk si ko. Mhm. ma ne nag dootuma topp si benn responsable di yappar yappari te du jariñ sencaan yi dara du jariñ néew ji doole dara du jariñ sunu way juru jigéen yi dara tàccu leen loolu ma ne nag man yàlla def na ab ràbb la piir dib géwël am ay géer ñu may teral guddi ak bëccëg sa lanu may terale ma say yëkkati sama alal ku ma sa mën a jàppale jàppale la ko te yàlla rek tax ak jëm Sëriñ Tuubaa ah, loolu si laa dema dema dem ba ne nag jot na sëkk ma créé benn mouvement ànd suqali suñuy gox ànd suqali suñuy gox nag buñ koy wax ay taax taxut ay sancaana xool ñi nga xamante si ne ay néegi ñax lañu yore te gone yi man koo taal léegi mu tàkk léegi ña fa dëkk duñ am fu nu fanaan ma fexe ba ñu bàyyi leen xel ci biir senegaal xam ne Sénégal lan bokk rawatina nag biir tuubaa gii nu nekk kilifa yi ŋànk Touba bàyyi leen xel xam ne njabootuk sëñ Touba lanu te njabootuk sëñ Touba bu sëñ Touba fatee ñëpp génnewul kenn kenn fanaanul bit am ñoo xamante si ne si néegi ñax la ñuy fanaan am ñoo xam ne si pajaas la ñuy fanaan am ñoo xam ne bu nu añee du nu reer ñooñee war nañ leen a bàyyi xel bu baax war leen a bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw yoon wi foose nañ lu man ñaari yoon ana la ko waral mooy ñàkku yoon lëndëm gaa bi ni yéen a ko waxandoo bu nuy dem dañuy lumière mën nanoo réer ba ba nuy dem te loolu lépp daa war a dakk mhm. te moo ne pourtant ñi fi nekkoon te nekkal fi gouvernement bi bu ñu ko doon dox sotti na bu yàgg mhm. ndax gis nañ fi kilifa goo xamante si bu bëggee suba suba suba ay poto làmp am ko si dëkkam waa taalibe yi sëñ Touba yi bàyyi seen dëkki maam gàddaay ñëw si dëkku sëñ Touba bi teen leen a gëstu si loolu jàppale leen si loolu dooleel leen si loolu fu nu xam ne sax ñetti ñetti kër a fa nekk war na noo jël ñaari poto lamp yóbbu ko fa te jëm yàlla ji rek tax ak jëm sëñ Touba man loolu may xeex nag man du ma diggee dara li may wax toujours fu ma ko war a jooytoo danaa ko jooytoo fu ma ko war a waxee danaa ko waxee ba biir palais incha waaye dara du sama yitte dara dara dara dara du sama yitte lu dul ñu bàyyi xel sancaani te sancaani kenn leen mën a bàyyi xel gannaaw yàlla ak Serigne Touba muy président Macky Sall moom rek leen mën a bàyyi xel ndax moom rek moo xam ne Touba du dëkk léegi am réew la te am na sancaan yu néew doole yoo xamante si bàyyiwuñ leen xel boolewuñ leen si si dëkk bi xel yi eggu fa tooy ndox yi yëggu fa kaaraanga gi yëggu fa loppitaal yi yëggu fa. dëgg la de. ñu bàyyi leen xel si loolu jàppale leen si loolu ngir leen si loolu ngir njaboot gi fi nekk te nuy njaboot gu sew yéen waa bi nag santaat leen yàlla bu baax te seenum xel dal ni seen xel war a dale mooy hôpital a ngi nii. te optaal bii bu paree si kàttanu sunu borom fii ba Daaru Karim fii ba seen arab yi yooyu yëpp tëli lay doon ndax hôpital la boo xamante si ne ñeenti koñ yi si biir Touba fu mu neexoon sëriñ bi sëriñ bi def ko fa waaye sëriñ bi seet Daaru Karim bu soobee yoonu Daaru Musi mu def ko fi ëllëg ak si biir bépp naataange bépp xéewal fii lay daw jëm si. hôpital bii leen président indil deux cent milliards la Afrique amu fi benn hôpital la fi Sénégal benn lafi fi bu ko président Macky Sall jëlee indi ko taqale ko Mbusoo beeg Daaru Karim ñoom moom waratunoo coow seen xel war naa dal seen yaakaar war naa dooleeku si moom. li tax nag manaan naan toujours dañu ko war a jox deuxième mandat président am na yéene si Touba bëgg na Touba ndax sept ans bi mu toogee ak léegi. sept ans bi mu toogee ak léegi fu lu mu fu mu daw guddi guddi mu wut si Touba lu mu am andi Touba xool leen Ila Touba bii bu yàggul la ko ubbi. tàccu leen loolu bu baax a baax a baax ñaata forage la yokk si biir Touba. bari na. ñaata tooy ndox la yokk si biir Touba ah bourse ñaata la xoolal sunu woy jur yi nga xam ne juróom-ñaar fukki at léegi weer wu dee nga mën a fayeeku juróom benn weer doo liggéey. am loo xamante ni da nga si mën a jënd gros petit cola foo mën a dem ndox say soxla moom Macky Sall rek moo ko def léegi nag ñun njabootu sëñ Touba ñun taalibe yi sëñ Touba ñun ñi dëkkee Touba ñu war koo delloo njukkal ana nan la ko war a delloo njukkal. ki ñëw ki ñëw ba sab ët xool sa néegu ñax bi daal wut tonub ciment daal di lay fondement am yéene yeggale néeg ba waaye ñaanal ko yàlla. mu gën fee yàggaat mën a yeggale néeg ba ba nga mën a dëkk. dëkkinu rafet. tàccu leen loolu. te Macky Sall yéeneem si Touba yaatu na de rëy na lool man xam naa si dara ndax kilifaa ma booleek moom te ki ma booleeg moom du politicien responsable yi nekk biir Touba amul kenn ku ma si mas a dooleel du kenn amul ku ma si mas a jàppale ah xanaa kenn àll la. ab murid la ab taalibe la gëm Serigne Touba te wóolu ko duma ko noppee de waaw tàccu leen loolu bu baax a baax na la dëkk te chaque jour bu gisee ne maa ngi def social dana ma woo encouragé ma dana ma woo dooleel ma jàppale ma moom Alla la kon kooku bëgg na ndamal président dëgg la de tàccu leen loolu bàyyi Alla Sylla à part moom nag amul beneen responsable bu ne xaadim mas naa koo jàppale dara du kenn ku yàlla bind du soxna maam xëri du Serigne Cheikh Abdou Bali du kenn ku yàlla bind ku mu mën a doon te ñoom bu ñu nekkee Touba nekkal fi sëñ Touba am taalibe bu jugee fëleen nekk biir senegal yilif senegal am yéene defar Touba lim man lépp mu def ko te lim defagul moo ëpp lim yéenee ëpp waaw bu nu gisee ndaw lu toll ne xaadim ñoom ñëpp war na noo da wut ci ko nag jàppale ko dooleel ko ba mu mën a am doole si biir Sénégal waaye grâce Alla Sylla rek a ko si def man nag gëwma ku dul sunu borom yaakaaruma ku dul Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Omar Diop borom njéekee mbaar bàyyi yaa ngi dégg teyit duma daw di topp si benn politicien si biir Touba di yappar yappari bu ma amee dërëm doy na ma bu ma amee fukk doy na ma li ma fas yéene daal lépp lu ma am lu mu toll lu mu rëy rëy ku ma àndal danaa ko bokk ak yow ku mel noonu. tey danaa fexe ba jigéen ju ma àndal mbootaay yu ma àndal dootu nu la dugal si kaar si sero dootu nu la nax si sero te duñu la jariñ dara danaa fexe ba lépp loo xamante si nu gouvernement dana koy séddaleet muy dugg biir Touba buñ ma si joxee sama cër képp ku ànd ak man booy am yaay am man ma ñàkk man loolu bi nag dañuy ñaan day door a tàmbali door a juddu waaye ñaan nañ yàlla mu wër àdduna bi. dëgg la de. tey lu baax rek a ko yékkati liggéeyal Serigne Touba si sancaan yi rekk ko yëkkati waaye lii suñu yitte te nu bëgg ko mooy sunu carte yi noo ko moom président yéen ñëpp kenn ku si nekk gis nga lim defagun Touba te kenn ku si nekk gis nga lim yéene yeggale ko si biir Touba kon nanu ñaan yàlla jox ko carte yi mu yeggale li mu bëgg yeggale. ndax bu ko dañuy perte. tey ji coow li ngeen di dégg yëpp ak wax ji ngeen di dégg yépp képp koo xam ne juum nga ba jël sa carte woteel ko keneen bu Sénégal tardé yaa ko tardeel xam nga nga lu ana nan la nit di fondement ab néegam néeg ba yeggagul muy lijjanti lu mu yeggalee néeg ba nga war ko see jàppale ngir mu mën a yeggale néeg ba nga naan ko gasaatal fee fondement waat te senegal Sénégal xool leen juróom-ñaari at yi Macky sàll fexe na ba jug jikko yi defarwaat ñi daan pasar pasaree xaalisu senegal yëpp kenn amatul fitu def ñi dëngoon ñëpp ñu ngi jéem a jub ñi jubaloon ñëpp ñu ngi gën a jub kon nan ko jox deuxième mandat juróomi at yàggul mu yeggale ay finition ndax tabax na bâtiment bi ba pare léegi finition rek moo des finition bi nag buñ ko ko yàqal. ndax keneen ku fi toogaat day commencé Sénégal delluwaat à zéro ndax tegoon nañ fi Ablaye waat tey ñu naan réccu nañ lu ko waral sept ans yëpp Macky Sall da doon tabaxaat di defaraat gis ngeen yim fi rêvé yëpp yim fi def yëpp léegi nag nañ ko may juróomi at yi mu yeggale ci kàttanu suñu borom ak bëgg gi mu bëgg Sëñ Tuubaa wóolu gi mu ko wóolu ak doyloo gi mu ko doyloo. waaw waaw lu man a xew keneen kuy jël doo ko jël ba nga xam ne keneen ku ñëw leneen ngay wax waaye doo nekk naan damay tabaxi hôpital doo nekk naan damay tabaxi tëli doo nekk naan damay dolli courant léegi courant ku péetul fii courant be fi accès gul rek waaye te incha allahu rabbi lu nu man ak lu nu mënul danañ ko dox moom ba mu accès ndox fii xam naa ne baa bu fi accès bëriwul lu man ak lu nu mënut danañ ko fexe ba mu ba mu yegg si kàttanu suñu borom waaye li ma bëgg daal mooy sunu carte yi nan gumba muuma luub te xool si wax Sëñ Muntaxa ji li wax li mu wax si Macky Sall ñu sànnil sunu carte yi Macky Sall dégloo premier tour six heures jot ñu dugalaat ko si palais bi mu recevoir ñu ñu wax ko jàngoro yi mbusoobe ak daaru karim ak daaru xaddim yëpp mu defal nu ko ni nu ko bëgg ba si Taysiir Njaay man loolu rek laa bëgg sama liggéey nag si jigéen ñi laa ko jëmal ndax yéen yéenay Sénégal yéen yéen a yor kër yi yéen yéen a yor doom yi yéen yéen sax yéen a nu far yor ñun borom kër yi non dëgg a nu yor léegi ma takkoog première dame Marème Faye Sall ku ko gis xam ko si social bëgg ko si social bëgg ko si dimbalee ak oyof tooy Marème Faye Sall nag bis dana ñëw du ma ne tey du ma ne suba dana dugg biir Touba te fuy sañcaan si biir Touba dana leen nemmeeku dana leen jàppale dana leen soutenir ndax moom lu baax rek ko nekk waaw waaye daal na ngeen xam ne nanu jàppale Baye Alla Sylla nu jàppale président Macky sàll jàppale soxnaam première daam première tour ñu gañe ko bu ko defee li nu manque lépp ñu mën nu koo defal buñ ko deful day gën a metti ndax keneen ku fi toog feneen lay waxi waat leneen lay defi waat bala moo wax waxi musoobe wax ak ñeneen def ak ñeneen boobaa day yàgg kon suñ carte yi nañ ko jox Macky Sall premier tour mu gañe ko toogaat juróomi at yeggale liggéeyam ci barke Sëñ Tuubaa premier tour waaw waaw